سن لخيتك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا جاي mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara waaye di jëlee di nuyoo bi alxalifa Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na yàlla guddal fana may ko wér ak njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp ñu ngi leen di ziara bu baax di leen jox seen wàccuwaay Euh, di wax rek mbokk yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ki nga xamante ni moo di alxaaji Ale Ndiaye nekk papa ki nga xamante ni moo di Abdou Ndiaye fa tabarakallah moom nag moo fi bàyyi ko niki tey jii ci dimanche bi tombe ak mais 21 mai 2023 fii si Dakar euh, moom moo fi bàyyi jamono ji nga euh, waxtu wi nga xam ne ci lañ koy jébbal boromam nag ñi nga xamante ni ñoom di ay njabootam. xamleeguñ ko jombul di ko xamle balaa yàgg waaye euh, xibaar bi daal mooy ki nga xamante ni moo di alxaaji Aale Ndiaye nekk papa ki nga xamante ni moo di Abdou Aziz Aale boroom borom ABC fa tabaarakallah moom nag moom moo fi bàyyi ko ñu ñaan yàlla yàlla yërëm ko yàlla yàlla euh, xare ko aljanna euh, doomam ji nag li mu liggéey ci biir réew mi kenn nattabliwu ko ki nga xam ne moo di Abdou bi nga xamante ni. moom famille moom famille bi nga xam ne moom moo leen bokk njaboote euh, muy Aziz njaay ak ay rakkam euh, yëkkati woon nañ lu bëree bëri euh, def ko ci liggéey jumaa ji fa tabaarakallah jëf yu baax yooyu nga xam ni njabootam ngi jëf nañ ko te def ko ci turam ñu ñaan yàlla na ko jëf yu baax yooyu nekk wéttalam ci biir bàmmeelam ci barke yonent bi sallallahu a ngi dégg sax fan yi ki nga xam ne moo di Aziz Ndiaye defoon nañ si benn vidéo moom mo joxe joxewaat yeneen cent millions yu bokkul ak euh, li mu joxe woon ci joxe ko ci seen turu euh, papa ji nga xam ne moo bàyyi ko di euh, alxaaji Ale Ndiaye mu ñaan yàlla yàlla yërëm ko yàlla yàlla xare ko aljana fa tabaarakallah loolu daal lañ doon na leen ko jotle ala nabi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 أجمعين سلام ربنا جاي